monsieur monsieur le ministre. waaw doo doo ma baal nga tegalaat ma ko. mais sëñ Cheikh sëñ Cheikh c'est pas que affaire nii ngeen garaawee mais ça va man maa ñëw sukk di ko sukk yëpp pour demander un truc toi tu étais présent évidemment qui m'a qui qui a qui m'a qui a beaucoup insisté de me ton patron au pouvoir et c'était avant que je m'engage en politique c'était en 2013 mais day na waar quoi xamoon ne nag gars yi mën nañu wàcc à ce niveau là mais comme tu es le témoin maa <laughs> ngi faire ak moomu ni ok eh, mën nañu xam audio bi ban la woon. Euh, Moustapha. Mhm. audio nga dégg mu leer. Mhm. xam nga waxatul ne rencontre am. waaw waaw waaw waxul na am na te 2013 la. Mhm. te Cheikh Issa Sall mooy témoin bi. simplement eh, li ci Mansour wax bés nga ko que science bi ne affaire ni la ñu garaawee te ñeme nañ yegg fii mhm. te beneen ba ma ngay wax ni non non moom mhm. du mom moo sababu rencontre bi mhm. Mansour a ko sabablu xam nga loolu wute na ak li mu doon wax ni Mansour dafa kàcci rencontre bi musul am ma ngay wax ne du moom moo sabablu rencontre bi Mansour mais su masur sabab rencontre bi Ousmane Cissé 2013 la koy doyee du Ousmane Cissé bi ñu xam 2014 du 2015 du 2016 du ba mu nekkee député 2017 du bu mu génnee présidentielle donc xam naa leer na léegi nag ma dellu si laaj bi nga laaj mhm. enregistrement bi